ñu ndokkeel ñëpp ci gan gu màgg gi di weeru ramadan wi tàmbali ci guddi gii tey wax ne sent yàlla war nanu ci fekk gi ak tal gi te ñaan ko mu may nu ci tawfiq ci dundal ko ni ko bëggee ndax lu ko ñor la ba wax ne kullu amal ibni aadama lahu illa sawm fa innahu lii wa ana ajzi bi jépp jëfi doomu aadama moo ko moom ba mu des woor moom maa ko moom te maa ci faye waaye nag yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa na ne am na lu mën a tax woorkat bi bañ a dajeeg payub yàlla googu lim doon xiif ak lim doon nar lépp dem ci neen te loolu yomb lool ci jullit ñi ñi ci ëpp dëkk ci ci koor ak lu dul koor te moo di waxi caaxaan ak jëf-jëfi caaxaan nee na man lam yadan qawla zuuri wala amala bi fa laysa lillahi xaajatun fi an yadaa taamahu wa sharaabahu ni biir bi di woore cër yi ci des ñoo xam bët la wala tànk wala nopp wala làmmiñ wala leneen lu mën di doon ne lañ wala war a woore amsik an nawari lil xaraami wal mashi wal sami maa al kalaami wa kulli fikratin radiatin kama amsakta an aklin wa shurbin ulima fa sawmu an yasuuma kullu udwi an kulli ma yufdi fatan li sahwi bu dog jegee it bum yàkkamti di dog te léeru ko ne jant wi sono te bu soo itam mu jëfandiku lu yam ba du mel ne bàyyi na ci ñàkk a jot payu terew ko sax ci lekk ak naan ndax bàyyi na lim baaxoo lekk ka naan ci guddeeg bëccëg du yàgg yàgg dem mu koo def ci genn guddi moom xamut loolu woorkat yu bari nag dañuy jéem loolu te ku baax ki tere woon nañu loolu ba wax tukathiru suxuura wal futuur waqta siyaamikum fa tuhramu al ujur إذ كل من ملأ بطنه طعام وأكثر الشرب عليه والمنام فإنه مع البهيمة استوى وفاته خير كثير كثير وتوى sëriñ baa ngi gërëm taalibe yi ci li weesu di leen soññit ci li ci kanam ci teral weer wi ci jaamu yàlla ci xiif ak mar ak julli ay rakka waaye ci jaame yàlla yëpp ci dimbule jaamam yi néew doole ak ci sàmmanteeg colin yim bëgg ku ne di solo noonu ak fu waay ak di jëflante ci suñ biir ni mu gën a rafete te mu bëgge ko ni ngi ñaan yàlla may fas fas bu wér ak wér gu mat ban mën a rafetal jëfuk lim nu ci diggal te man ko booleeg sori lim nu ci tere te jéem sax ak jëfe ndigal bàyyi tere gannaaw koor gi loolu sax mooy tegtale ne sunu koor yàlla nangu na ko ci gàttal lii laa andi woon ci turam te naan yàlla guddal fanam te wéral ko ba mu eggale yéenéen ci diine jéeg ci réew mi te mu ànd koog kilifa yi yoon wi te yàlla na yàlla defal loolu yeneen kilifay yi diine yépp te jubal te jubale kilifa yi aaday réew mi ñépp lu ci dëng wala mu yées ci man la waaye moom lu jub lu mat la bëggoon ma wax ko man moom laa yéene woon maa ngi ciy jéggulu bu baax ak ci laneen lu mu mën di doon lu ma war a jéggulu lu ma yëg ak lu ma yëgul ak jéggale ku man di doon xadumal ahdu bil xatai am xadas moo xam njuumtali yàgg na wala yàggul ni ñu ko an il xatai taala zamaanu am qasur njuumte moom jéggulul rek moo gën a wóor moo xam yàgg na wala yàggul maa ngi jéggali ñëpp yàlla na yàlla boole jéggal déwénati wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu waaw